أعوذ بالله السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki lislaam yi ginnaaw ba nu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu ñëw ci seet si kilifa gu tedd goo xam ne sëriñ la ci ni ñu xamee sëriñ di doomi soxna waaye dolli ci di borom xam-xam di ab jàngkat di sëriñ Moustapha Diop kokki di sunu wayjur ndax jàngandoo na ak sunu wayjur ca Kër sëriñ Sid la waaye tamit di suñu ustaaz jàngal nu ñu jaar ci ay loxoom ba yàlla dogal ñu jàngi dellu si wóotu leen ci liggéey bi jàppale leen ci kon jàpp naa ne gan gu nu xam la waaye tamit gan gu alxadimiya xam lool muy site internet bi di alxadimiya kon tey moom la ñu fas yéene àndal waxtaan wi ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké waaye nag waxtaan wi tomb bi ñu fas yéene ànd ak moom mooy li ñuy wax almuridu saalik mooy murid bu sóobu ci yoonu tasawuf yoonu gaaña yoonu mag ña mu mel ne dañ ko def ay laaj yu bari ay tasaawulaat yu bare bari yooye ca la ñuy jéem a tontu incha allahu taala ba pare dëppale ko jamono mu mel ne tasawuf ba ca téere ya nan la ñuy mën a def ba jariñoo ko ki sóobu wan yoon lay jaar murit ci boppam ndax nee nañ muridu saalik murit ci boppam mooy lan saalik ci boppam mooy lan léeg-léeg mu nekk murakkab idaafi wala mubtada xabar ba tey melokaani murit yooyu ñuy wax sifaatu saadiqil muridin melokaan yooyu ci ban taalibe moo ko war a melawoo ak ban sëriñ moom la taalibe bi war a jëfandikoo melokaan yooyu ca moom murit bi nan lay nekke saadiq nan lay nekke saalik ndax ci wird la koy jaare wala déet mën na koo nekk ci lu dul wird lan moo séparé diggante murit ak marit murit saalik buñ ko waxeet am na lu muqaabalaal muy maj suub te mu mel ne bari na gone yoo xam ne fi mu tollu doxinu maj suub la ñu dox ci yoon wi kon loola tamit bëgg nañ ci ay teqantal lan mooy gaawal ab dox ci yoonu yàlla saalik bi bu xasee sóobu tasawuf lan mooy gaawal ab doxam mu mel ne tomb yooyu bokk na ci yi nu fas yéene seq ak moom incha allah sëñ Moustapha ñu ngi lay jox nga nuyoo waaye nuyoo bi waxtu wi li mu xat moo tax xam naa ne dañu koy booleeg laaj bu njëkk bi rek boo nuyoo ba pare bëgg nañoo xam ñaari baat yi. benn bu ci nekk murit ak saalik ba pare ñuy door a dugg ci laaj yi incha allahu taala.
asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. fattaahu wahaabu yaa rasaqu yaa maliki lifta wa habliya warsuq ñu ko ñu aana dayqi ajil ajilan bil bishi ma amadin xata uqima li diini laahi arkana yasir juuci di tuuba waxmini waqini adal wara wa tutib li sama iskana laka sama wal aradi wal hawa bila musharikin deeru mashik bana ajib wa salli bismillah ala sanadi muhammadin wa tafil fexm dana asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa al alxadimiya sëñ Mamour Touré ak sëñ Mbakke Mbegere mi nga xam ne moo ko yor ak sëñ Masamba Sille mi nga xam ne mooy féetewoo jotaay bi ñu ngi leen di di di nuyu te tey jiital ci ci nuyu bi ki ki ki ki toogee jotaay bi sëñ bi te mooy sëñ. mun taxaa diggéen yàlla mu mu boole ñu ñun ñëpp uddal suñuy fan wéral suñuy cër wéral suñuy xol leeral suñu suñuy ruux ba ba lañ bëgg am ci yàlla moom mooy yëg ko xam ko mu wóor ci ci ci noonu bala ñoo faatu yàlla saraxañu ko kon kon kon xam naa kon màggal gi tey la bis bis bu njëkk bi ci safar nee ñu tey la bis bu njëkk bi ci safar moom mooy alxames ci kon safara ngoog safarul xuruj safarul xuruj mooy weer wi nga xam ne ci la Sëriñ Tuubaa génnoon ngir liggéey liggéeyam bu rëy boobu nga xam ne li mu bëggoon lépp nee na mënu koon a am lu may ci tukki bi ne ko Cheikh Amadou Bachir di waxee ca Tabaski la wax wala Korite koo xam ne ba ñu xëccoo ab dërëm fii ci Touba suñ bi tàng jër ne danaa ko lal foo xamante ne kenn du fa fekk ndekete booba nee na ma ngay juji booba tukki bi ko kon safarul xuruj ngoog safarul xaraaj yi it xam naa moom la ndax suñ Tuubaa moom safarul xuruj bi moom moom lay màggal coono ya lay màggal waaye màggalul xéewal yi ndax ndax ndax la ma waxoon ne suñ Basiir waxoon ci minan ne Moukhaddamatoul Khidma ba mu noppee ne daanee ni amatoon fii tey neq ma la xéewal la goo xam ne dañ koo këmbkaayal tuskare moo tax Moukhaddamatoul Khidma sama rakk ju ñuy wax Nuuru si si si si Saliou ne woon na ko matul di baril ndax dana feeñ ci waxeef na ne dana feeñ ci nit nga xamante ne day mel ne ne sax njëbbeenu xësi dëgg contrat boobu bi lay joojee kon ku jàng xësi maanaam léegi xësi dëgg ni nga tuddee xësi rek aada yi murid yi ku ku koy jàng kon bañ koo jàngalee gën a wóor ndax contrat ba boo ko signé jóbbul kon xéewal yi yey ñëw ci ci këmbakaayul tuskare lañ koy def kon laaj bi moo doon murid bi nga wax murid sadik murid wasful murid yi tarkool iraada murid moom moom mooy ko ko bàyyi ak nameel guddul nameelu yàlla li wacci man yafalu ma ma araada nga xamante ne man man man la man lam yurid shay'an siwa mawlaahu kooku kon moom koo xam ne daa daa daa bàyyi lépp tànn yàlla dana am lu mu bëgg kon kooku murid waaye nañ indi waxee suñu Basiiru ja ci minan lu am solo sànq soo demee wax di wax naama waaw soo soo demee may wax sànq naa naa ci ci naama Cheikh Rafal ja mat naa leeral suñ suñ Basiiru nee na Cheikh Rafal ko nettali jëbbaloo nga muy te texte bu ama am njëriñ ci noonu Cheikh Rafal nee na ko ba ma ñëwee ci sëñ bi dama ne ko man day dara génnewuma sama kër lu may sëriñ boo xam ne su ma su ma ne ko jàkk leerug yàlla gi dana ma faral nitéem nga su ma gisutoon sax lu may bàmmeelam ba rekk dana ma doy ma mën a am ci moom la ma bëgg sëñ bi di ko yow de dafa mel ne kon maag yow dañoo niroo pas-pas ndax man day su doon fikk mu fi woon rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam waaye fekk naa fi suuf si mu wér ma ne ma kat ci la doon dox biddiw yii ma mu wér ma ne moom moom la la doon xool kon sama yitte ci moom dana ma may ci moom li li li ma bëgg kon daa mel ni kon serafal kon daa ñëw ne moom damaa bëgg nangam laaj la ne man day dox naa ba jàpp ne yow mii moom nga ndax yow médecin bët nga wala médecin xol nga man de sama xol moo am jafe-jafe ma bëggoon médecin xol ñu ne man ñu tegtal ma la engagement bi maa bi nag kon mooy su ma la fekkatoon it fekk fi sa sa kala fi wutu képp it la la nga bëgg kon jàpp naa danaa ko am kon sëñ bi kon moom daa daal di d'accord ci ne moom médecin xol la da daa d'accord ci ci ne mooy professeur bi bi nga xam ne moo jiitee barab ba kon moom it daal koy ci wan ne ko ah man kat may ba may jàng kat su ma fekkatoon professeur ba sax waaye fekk naa fa ka ko doon jàppale képp la nga bëgg ci xam-xam bi danaa ko am foofu foofu foofu kon leer na xanaa foofu mu leer na kon kon léegi serafal moomu murit bu doon serafal murit moom serafal dong lay doon bu doonee serafal dem fekk am sëñ Bamba murit ba dana am la la la mu bëgg waaye ndax mu am serafal amati na ndax am Sëñ Bamba amati na si soxna Mbacke Abdou Wadoud dama koy laaj ku ku ko fonk laa dama koy laaj ay ay ay- ay laaj maanaam jublu ci ay mbir nga laaj ko ne ko ne ko seexu naa mag ñi ma xamoon njaareem anañu mu ne ma dem dem nañ ma ne ko ma ne ko ma ne ko ah ndax ndax ñoom mënatuñoo di kaat mu ne ma déedéet mu ne mu mu mu- mu ne ma sëñ Tuubaa ma leen pikiroon dem na te ah, te pikir mënut a pikire faaw dañ koy fob di di ci pikire kon loolu kon tënk na kon wax ji ne kon kat Serigne Fall dem na su Serigne Touba dem Serigne Fall ay murit ba sëñ Touba ay sëñ ba léegi gi nag képp koo xam ne dangaa jóg ne dangaa da ngay wuuti yàlla suñ Touba nee na waman tajarrada li xidmatil jalil xabla taallumin fa xumrun la nabil képp koo xam ne dangaa jóg ne da ngay sóobu ngirum xuus jëm ci yàlla te xamoo dara kooku dof la fa xumrun dof la moom laa dabil amutum xel ndax ndax ki képp koo xamante ne dangaa suubu suubu suubu ngir ma war ngaa xam ne wa- waman bi mah mahi tasawu fi nasal bi xëyri musaaxabati see seexin xaxat kamul fi nahu yaxuudu fii baxri rada képp ku sóobu ngir ma ne dangaa jëm ci ci yàlla lëgg-lëgg yoon wa te àndoo koo ko xam kooka moom dana xuus ci géej gi alkande kon léegi murit bi mooy serafal ko kooku it saalik la nga xam ne daa ñëw ci kum jàpp ne xam na dara kookoy nangu engagement ci ne xam na dara ñu ànd wa- de- wa- si- sëñ bi nag te te tegaloon na ko ña- ne ne ko na kon na nga wogosu bul soxla ci àdduna am mbaar sax bu- bul ko soxla kon kon kon Sëñ Tuubaa kon léegi engagement bi kon nangu na ne moom léegi mën na dara nangu na ne ku ku mu jàpp ci loxoom dana mën a dem waaw foofu lu am solo foofu foofu si sama sama sàmba te tënk fi dëggaa fi tuuti rek Sëñ Tuubaa moom loolu loolu kañ la woon mille trois cent un deux la woon ca Mbàkke Kajoor ki man lii sëñ sëñ bi man lii man man mën a def engagement bii ma man mën naa la yóbbu jéggi la géej ju océan bi kooku sëñ bi ndax kuy soog a tàmbali la la la la doon bool bool bu minul am ndox dem ndakaaru di jàng fii yaakaar naa xanaa doon ko xanaa de ko- kon la kon ab tontu la kon ba xam kon sa sa sëñ bi kon yoon wi kon kër la juddu bisimilah.
jërëjëf sëñ Moustapha man nag foofu rek moom taxawaay boobu rek am naa fi laaj Mm.
kon daal li nga ciy déggee mooy Mm.
muritu saalik moom Mm.
faaw mu ànd ak sëñ bu xam yoon wi Mm.
te yoon wa mu koy teg Mm.
mu nangu caa jaar Mm. Waaw.
te dana jiital xam sharia ak Mm.
lu bari xa- xam xaqiiqa Mm.
maanaam xam fiq tawxiid xam lu bare bari door a sóobu Mm.
saalik dafa mel ne loolu mënu caa ñàkk Sukut.
waaye léegi nag li xew nga xam ne da ngay gis gone goo xam ne waxtu wam da war a dalee alxuraan Mm.
ca la gàddu ju jukki xasidaam yu bari yu rëy a rëy comme ni nga ko waxee ci muxaddimatu xidma Mm.
nga xam ne njalbeen gi Mm.
neexama fii tey niq ma jooju nga wax waaw sooy jàngalee billaahi ladi ja ngiñ loolu nga xam ne da ngay mel ne kuy jaayanteeg yonent bi Mm.
boo moytut mën naa am bala ngaa jot ci xéewal gi coono daj coono waaw.
léegi nag gone gi nga xam ne nag léegi ci waxuma la jàng xam-xamu sharia waaye ci alxuraan sax la la toll Mm.
jàng alxuraan mu tëb ko Mm.
dikk gàddu xasiidaam yu toll noonu yu bari lool Mm.
di durus rek nga xam ne foo ko fekk rek daanaka ma ngay jël yoonu mag ña te dafay mel ne tasawuf li ma ci gis eh, dëgg li ñuy wax eh, tabattul maanaam insilaag Mm.
soobu dëgg-dëgg damay gis ne bu njëkk lu ci ëpp gaa yi ci ñeent fukki at wala ci lu ko jege ci lañ ko daan defee nga xam ne àdduna dafay mel ne Mm.
eh, ay maraaxil la Mm.
gone gi bu tollee ci jàng alxuraan warut a def dara lu may jàng alxuraan Mm.
su ca paree jàng xam-xam ba xam-xam bi leer ci boppam Mm.
te waa tasawuf dañuy wax ne soobu moom Mm.
kenn waru ko def te xamoo sariya Mhm.
ba pare Mm.
Eh, léegi nag li xew moom dafay mel ne safaan ba lay doon maanaam ci sak ngone nga xam ne fa nga war a jànge alxuraan fa ngay tàmbalee daanaka Mm.
te doo yaroo ci loxoy ab yarekat te waa tasawuf moom dañ ne kenn mënta sóobu tasawuf def insilaak te jaaroo ci loxoy ab yarekat Mhm.
bu mat sëkk te xam yoon wa léegi moom dafay mel ne yoonu mëcc soob la ñuy jaar waaw bu bu ma paree sax dinaa dikk ci leeral ñu lan mooy mëcc soob dëgg-dëgg waaye dafay mel ne eh, safaan ba la ñuy def dikk rek doo amub sëriñ eh, yow jël say xasaayit yu bari wala say wérd sa tur yàlla yoo xam ne ca ngay jaar pour bëgg a yéeg su ko defee waxtu wa nga war a jàng waxtu wa moom doo ko jàng waxtu wa nga li war a liggéey doo ko liggéey léegi rek soobu dem ndax noonu dëgg-dëgg noonu la ko mag ñi doon defeem de
waaw kay sëñ Masamba waaw maanaam xam nga ginnaaw noonu yëf yi léegi ma mag ñi dem nañ naaw nañ noonu noonu ko suñu soxna waxee naaw nañ dem na moom li fi def mooy altoppe yàlla dogal na it noonu binduñu fiqu tariqa waaw fiqu wedd bi ci ci ci ci coom da bind naa ko fa bëgg naa ko génne mu doon ab téere bu bu ndaw fiqu fiqul wedd waaye fiqu tariqa ko di murit la lu la ciy dugal lu la ciy génne looy def ñun amuñu ko waaw lo loolu nag du suñ tubaa noonu noonu ñoo ko war a génne ci ay mbindam waaye nag suñ kilifa yi jombul ñoom xam naa seen xel aggu ca mbooloo mi dañuy wër nii rek moom di dox suñ tubaa dañoo dénkoon laa tafaaloo shay'an bi gayri idn fal idnu shartun fi xabu shani bul def dara te amoo ndigal léegi waaja day day dem jënd xasidaam yu bari di jàng rek Issa Gueye nee na ma Cheikh Ahmadou Miskine nee na ko nee na ko moom booba di ko wax ma wax xet ma mu ne ko yii loolu yi wóorut ne ko moom jaawatu kese lay jàng kese ëpp sëriñ ma ko joxoon su su su su ko joxoon. fi tollu man mii genn xasida rek laay dappetoo bis bu set genn xasida rabbi bi maa yasrahu sëñ Saliou ma ko joxoon ndigal. nemal lu ci nekk ci ay leer ak secret yàlla na ko suñu boom defal digal na ko di dama digal naa la ko digal naa ko digal naa ko ba mu ñetti yoon lu ci nekk ci secret ak leer yàlla na ko suñu boom defal moom kese laay jàng mooy sama mooy sa sama sàll man man nag loolu laa xam ginnaaw bayit bi moom leer na bu te te te tasawuf jëppit noonu la nooru sama rakk nee na nekk xel comme la wax wala njurul Sëñ Saaliw ñëw fi fekk fa ñu ñu takk fa nii ay néeg nee ma toog ci ñëwaan gi naan di junj ñu ne ko kii de ko def mu daal di dagg wedd wi daal ne ko daal ne ko daal ne waaw daal ne ko nii mu ne ko man de damaa toog ëw ma lu ma def wolof yaa nag juunu sëñ bi ne ko moo ne toogoon ci ndigal de moo gënoon kon moom te te te soxnañ lañ ci xam mooy looy def am ci ndigal bala ko nit nit a xamoon dañ koo jox ay bagages yu mu xamoon ba noppi def ko ba sonn gisu ci dara am ku ci am ndigal moo xam ndigalul jóge ci yàlla la wala mu jóge ci ab jaam bu jóge ci yàlla mu jox koo ko su ko defee day daal di gis lu mu gisutoon xam lu mu xamutoon kon kon moom ndigal moom ci tasawuf moom mooy yoon wa ñooñu nag sëñ boobu diw sàngam góor googu dëkk damay bañ a tudd wa ca ca Saalum am juróom ñaar fukki at ak juróom laajub sëriñam werdu maaxuus nanguwul ba ba man mii la mujj laaj ma jox ko ko ab xale ñëw ne fii ne ma laaj laaj na sëriñam werdu maaxuus sëriñ ba bañ tere ko ko ba yow ci de da koo tere mu ñëw fii ma jox ko ko léegi nag. gone yi nag seen yëngu bu bare bi fu ne fu ne ñu dóor fa seen bopp it nag kilifa yi kon ñooma kilifa yi nga xam ne Sëñ Tuubaa dina teg ci kanam mbooloo mi ngir ñu baddali leen lijjanti leen su Sëñ Tuubaa lu mu dénkoon Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha dafa yónnee woon ndaw ci sëñ bi ne ne ko dama bëgg tukki ci kër gi mooy dugg xalwa sëñ bi ne ko ma laaj ko boromam dugg ci biir génn ne ko boromam nee na defal defal na leen ko ci ngeen baddili mbooloo mi baddili mbooloo mi daal ni belli leen xar kanam yi lay tee ñu yokkat maa koy def ca xol ya yàlla de sun sun borom may wax sëñ Moussa jotara wax na ko bis Moussa yow jàng fal sa ba noppi yow bu ne sëñ Tuubaa rek ci nga fàtte la la nga jàngoon man di ko xese bii ne ko ne ko sëñ Ba de sëñ Ba de sëñ Ba de waaw waaw waaw kon mel ne kon xam naa
waaw mel na ne waaw waaw Eh, leer na waaye li ma ji bëgg a eh, laajaat dëgg mooy Mm.
murit saadix saalik Mm.
maanaam ci yoonu murit Waaw.
nan lay nekk saalik ndax day nekk saalik Mm.
insilaak eh, jaare ko ci wird wird maaxus wi Mm.
wala nekk kër sëriñam mu di ko liggéeyloo rek wala mu jébbalu ci ab sëriñ dem këram nekk ci boppam di liggéey saa yu addee joxe mu dikk joxe addee demaat même bu ko sëriñam joxul dara nga xam ne tegul ci loxoom wird maaxus tegul ci loxoom dara nga xam ne daal eh, waxtu wu nekk day eh, bu ñu dajale addiyee mu dajale comme ni mu xewee léegi nga xam ne kër gu nekk dañuy laaj dara ñu laaj la nga joxe rek jeex na waaw boo dikkee daal toog fukk juróom benn weer wala at dikk nuyu sëñ bi joxe dara ñu teflil la nga jóg dem ndax dëgg-dëgg ak murit saalik noonu la war a mel
si wasamba murid sa- saadiq yi dafa ne baat baatu saadiq du du du xelmet naa ko ci ci wax ji baat bu ma mat a leeral la murid saadiq sëñ sëñ Mbakke Madina ba ba mu jógee ca alxuraan ja moo ko sëñ sëñ Caagaan Farma si son soi yónni leen leen dem leen ci seen ma- maam ju tedd ja njaaree mu ñaar leen mu dem noonu ba ba demee ba ba dikk waaw foofu sax am na solo moom it bañ demee suñ bi tar tariloo leen luqumaan tariloo ko suñ mbëkk ba dina luqumaan mu mu tari ko ba ca la laa tushrik billah suñ bi taxawloo ko ja bul bokkale sama bàyyi ne ma di junj loolu tawxiid ji nee na bu- nee na suñ bi nee na di digal naa leen ngeen di jàng alxuraan ba mu saf sàpp ci seen yàpp yaram yi ndax man de lu mu am ci alxuraan la ko amee bañ dikkee Cheikh Moussa digal suñ mbëkk ba dina ak suñ Cheikh neen digal naa leen ngeen ngeen ngeen di ko wàccee ci ci bis bi su su su ma dina ne xam naa suñu sax amul jot gi su ma xëyee wàcceel sax bopp su ngoonee moo mu wàcceel ko Cheikh Moussa daal ne suñu bëgg ma dina demal ci sa maam sa sëñ daam mu mu mu mu ñaar la du sëñ daam sëñ daam bi ci sama bàyyi nee na bi ñu ñëw booba ñu ngi jiitle ak ak seex buy tëggoo sëñ daam a ngi ci tuukar bi di bàgg tàng jër ba ba- ba agsi mu ne ko sëriñ mbaadu ya- yaa ànd ak tëgg mi mu ne ko déedéet damaa jiit léegi seex bu- bu- buy tëggu xam nga kon kon mbir yi kon mel ne kon bu- kon bu- booba ko- kon la tàmbalee xorom sëñ daama ngi kon ne- ne- ne- nee na mu ne ko ah euh, mu ne ko- mu ne ko sëriñ boo doon am ngooñ de may sam saarit yax yow yi nga xam ne ca ngooñ ma euh, euh, nag yow mënuñu ko laal wala wala xar ya mu ne ko te man de sama am seedaloon na ma ne murid saadix nga ne ko murid saadix nag mooy koo xam ne mën naa dérélé diggante ñaari géej yu mag yi océan yi sapp ko sapp ko di ko xool di xam la la ca ne su bis pencee mën naa dérélé di di- dérélé diggante àjjana ak sawara ku ñu àtte ba nar koo dugal safaan ba mu dini ko kon murid kon murid murid saadix nga kon loolu kon kon moom bay bu ñu teg ko fe loolu moom loolu kon moom teg ko fe kon moom di ay ii kooku moom bëggu kooku bëggu kooku léegi léegi saalik moom moom mooy lan moom sali sa- sali mooy mu tax saw wif koo xam ne dangaa seen sëñ daam taarixam ba yéem la nga bëgg a mel ni moom nga daw ne dama bëgg a mel ni sëñ daam ñu ne ah sëñ daam moom fam fam jaar métti na di aqabaat yooyee mu mu- mu jéggi pakk ya mu jéggi ah wala sa taxtawil wusula lil jalil bi xayri xat an aqabaati ya nabil munoo àgg ci yàlla mukkute te jéggi woo pakk yi bu dee am nga xel kooku mooy salik jóg na moom bëgg a mel ne s- sëñ daam bu ñu- bu jógee nag am serafal lay doon xaritu sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ daam ba ñëw ci sëñ tubaa ñëw ci sëñ ba léegi ñaaraam eh, takkoowu lay doon takkoowu m- mooy mooy di siyaare di dem ak a ñëw wala laxasaayu mu ñëw ci toog ci kër ci kër gi guddeeg bëccëg di nekk ci ndigal bu bu dee takkoo wala bu bu dikkee siyaare si ñu ñu- ñu yeesalal ko ndigal ci lu mu war a def yokk wala wàññi wala nangam traitement ba nga ko moom entré wu ci ci hôpital bi day jël garab yi waaye nag li ñu koy wax ga- ga- garab yi di di di ko naan suba ba ca ngoon mu dem di di ko naan suba ak ngoon bay ba ca ginnaaw xam naa da- du gudd na bu dikkee effet ba mu war a def kon du du- du ko def. léegi léegi kon moom léegi da- da- da- ginnaaw murid saadiq la bi iradatihi fii iradatihi la mu wax ne ne kat daa bëgg a am nangam ñu ne ko boo ko bëggee àndal ak man ci nangam mu dëggal ca waxam ja kon léegi bu ñu ne ko dee ko naan garab gi su subaak bëccëg ak ngoon dana dana ko def laxasaayu nag moom day day nañ ci biir kër gi moom nga xamante ne léegi nag taqoo nga xam ne moom médecin bay ñëw ne ko garab gi jot na naana ko kooku moom moom yoonam néegul ci garab ga moom saa bu ñu ko waxee la la koy def su suñ ko waxut du ko def léegi nag ñaar am na ñett bokk tërbiyee goo xam ne sëñ bi da ngay toog fi moom takkoo bi bu dikkee sëñ bi wax ay wax feddaliwaat laxa saayam ci ay waaraate ba xol ba sel mu dem mën naa bu ci dundee ay bés nangam pastéef ba daal di wàcc mu dikkaat seera ba dem kooka ñu ñu jox ko werd sëñ Basiiru ca minan sëñ Tuubaa bi mu dem ko ci géej gi dadaa jox gaa yi moom ci werdi mag ñi wala al mustaxraj min awraadihim loo xam ne da koo senteese ca seen werdi ya ay bagaas daal la leen jox ñuy dem léegi am na koo xamante ne kon am na koo xam ne moom kon moom ne léegi waxtaan woowu rek ci lay yéege am na koo xam ne dañ koy jox werd muy dem waxtaan wi am na koo xam ne xaal rek gis sëñ bu képp bu ko gisee mën na caa liggéey ab diir kon léegi nag sëñ Tuubaa ci ca xoqa damaa jàpp ne man werd wi léegi nag joxe ay azkar werd moo gën a noppale ki ne ci biir kër gi daa war a jëfandikoo werd takkoo bi di jëfandikoo werd werd wi nag waxu maaxuus maaxuus moom mooy mooy mooy buum gi gi nga xam ne day tax soo soo bëggee courant am ko yoral xaw ma contour ci ci woyofal am nga fil gi ba noppi su su crédit ba jeexee da nga ko ci defaat kon léegi fil googu nga xam ne soo soo defee crédit mu mu mu maa dox loola mooy wirdul maaxuus kese moom léegi soo jëfandikoo ko wird wi message yi nga xam ne dana jóge ci yàlla jaar ci yonte bi ñëw ci Sëñ Tuubaa mu mën a agsi fi yow kon maaxuus moom farata lay doon ci ku bëgg a dox doxu biir amaa nag ku bëgg a doon am góor a njaay rek ci biir mbooloo mi kooku moom moom moom la Sëñ Tuubaa waxoon mbokkam séeréer ma njaareem day def saa borom bay ci penc mi fekk ñu teg fi bool yi mu ne ah dañuy fayee ñoo ko déet waaye di sukk ay fan mu ni ko ah waaw ndax sëriñ gi moom ndax mën naa ko gis ñu ne ko loo bëgg mu ne day jébbalu suñ suñ bi ñëw bu ñëwee suñ bi ne ko ah mbaadu bool yooyu moo tax loolu loolu loolu kon kon moom aw tur tur bi nag daa am lu mat a leeral diggante tur yàlla ak lasaar bokkuñu tàqale bi gën a yomb mooy lasaar foo ko fekk ay jinne lay lënkalool ñu koy jëfandikoo xam nañ ne ay jinne lañuy jëflanteel am na lu rëy nag lu ma dégg genn gonek nguy góorgóorlu xam naa ñu waxtaan ba mu ba mu àgg ci càng man lu ñuy tuddee ni kaaxul arwaax la ko tuddee man keroog laa ko mës a dégg di def xalwa di gis ay jigéen di seeg ñoom am lënt tigi la la saraar la de la saraar la loolu du tur yàlla tur yàlla day day ragal ak mooy saahir ak batin istiqaama dëgg karamatul wali yi an laa yaasiya bi daahirin wa baatin inosiya dëgg dëgg karaamay wàllu yu mooy mu bañ a mooy yàlla ci biir ci ci bitti moo xam ci tawxid jala moo xam ci xaat yëpp rek mu mu fexe ba ba téye boppam kon léegi la lasaraar jinne lay lëkkalool la lasaraar it boo seetloo ñi koy def faw ñuy def bakkaar yu mag yi njaaloo naan sàngara rëy nit faw ñu koy def moom loolu mooy tax mooy tax seen mbir ubbiku
sëñ Moussa xanaa loolu la lasaraar zulmaani la. ok.
sëñ boo demee ci Iblis. min kalaami si Seydi Abdulaziz Ad-Dabakh li li Cheikh Ibnul Mubarak dane bu bu waa ji dee yéeg di jëm ca pays ya mulku bi su su koy jéggi sunu moom da koy xamal xawaani ni mulku bi lu waay garab sàngam boo ko daggee bu sàngam nangam biti bu fekkee nangam nangam nangam mu ne nag yooye bu ne ca bu ne ca xul nag ne ko xool ñu daal di wàcc kiiraay li rideau bi léegi mu dal koy delloo ca maanaam léegi géttu dawaab ya nga xam ne kooku nag su su wàccee noonu nga xam ne moom lay xam ne ne te tëj nañ di di bunt ba bu dikkee li may ma ma ma mën a wane moo mooy lasaar mo mooy kat nangam day bi du sangam bu fi fekkee diw faatu nangam reen sangam boo ko daggee nangam yooyu moom soo soo dee jëfandikoo tur yàlla yooyu da dañ la koy xamal waaye da ngay xam ne du ab taxawukaay léegi gi nag dañoo wax ne soo dee dox jëm ci yàlla kuréelub jinne yi nga xam ne ñoo ñoo gaw nit ñi nit ñi buñ bu nekkee nii jinne yee leen wër bala ngaa jë àgg ci yàlla da nga jéggi xuus ci jinne yi jinne yi nag ñoom booy xuus ci ñoom dañ lay doganu loo bëgg yow ma sàmba loo bëgg xaalis ay toogal kay toogal jëri ko ma jox nangam tur sangam loo bëgg mbooloo taxawal ma jox nangam léegi gi nag ji jinne yooyu foo leen fekk xanaa sëñ Moussa bu fo loolu xanaa mooy aqabaat yi ñuy wax ci tasaw bala nga àgg waaw kay nga am ñu lay dogale sukut sukut maanaam jinne yooyu nag yàlla tere léegi nag ñu jox la xam-xam yoo xam ne soo ko defee alkani daal di dikk misaal benn waaye mas na maa wax ne di tudd kilifa di tudd waaja ne ma kat moom day day jëfandikoo ak moom yóbbu ma ba sama benn waay la ma ma rus ko nag ànd ak moom dem waaja daal ma jox aw tur tur wi tur wu gàtt la yaakaar naa ñeenti baat la ñeenti araf la mu daal di di ne ma wérdu ko ay bés ma génn ne waaja ah sa waaja de xam naa ne ku baax la waaye xam naa de daa mel ne lim ma jox xamu ko maanaam ba tur wi ma jox xam nga xam nga tu mooy la na mooy bëkk néegu juróom-ñeenti doomi iblis yu jigéen boo ko weddee ay bés ba mu nangul la da lay feeñu ne la andil andil la ji jigéen ña ne la tànn ci ku la neex séeg moom loo bëgg am ko fi mu toll loola tur ba sax day day niru arab te doon ko maanaam tur ba boo ko soo ko dee jàng da nga yaakaar ne arab la te doonu ko turu jëmm la léegi nag soxna yooyu bu dikkee nga nangul leen contrat bi séeg ñoom lépp dal di tuur waaye nag ku ne xam na ne moom sulmaani yeeg iblis gu rëy ga moom ku ci dugg alko na moom kon kon moom ba tey kon jërëjëf sëñ Moussa foofu nag dama fay bëgg a dugg ci tomb bu am solo mooy lan mooy gaawal dox bi kon murit bi bu nekkee saalik ba sóobu ba tege ci yoon wi ab doxam ci yoonu tasawuf wala ci rawatina bu dee murit muritu Serigne Touba lan mooy gaawal ab doxam
xam nga maanaam léegi sikrul ilaahi sikrullaahi moom mooy mbir ma ma ci ci ci gone yi dañoo bàyyi yoon wa ba noppi ba bëgg a dem yoon wa moo doon mag ña lañ xamoon dem ci ab sëriñ maam Ansu Ñang dëkk sëriñ Mang ci wetu Kaarang nee na ma tërbiyu naa sama sëriñ ñaar fukki at ak juróom dem ci ab sëriñ waaye nag ko kooka day xam dara mu jox la dara ju wér nga nekk cay dox ba xam dara maanaam waaye waaye waaye sëñ Moustapha foofit xam naa dana wuuteeg li waaqia bi fi mu toll nga xam da ngay samp say daara ci àll bi rek daaree tarbiya ba pare doo fa jaar nekk ci àll bi ñu ñu ñu ñu ne fa doo ngay ne fa di bàyyi rek daanaka loolu ba nekk mag duñ fa jëlee dara ci ci lu ñu mën a gis dafay mel ne mag ñi bu ñu daan tarbiya tamit am na lu ñu yore nit ki daal lu ñu koy téye.
sikkuut waaw di ko waaw waaye léegi nag li xew moom.
xam nga daa daa am yaari yëf ku am connexion ba mën koo partager connexion bari lool mu mu mën laa partagé kooku connexion ka ne suñu am am suñu fan lu nga toog fi mu am mu daal di bég ci yow daal lay ëf nga yéeg ci maqaama moo xam ne mënoo koo liggéey ci amaat kooku dafa am puissance boo xamante ne mystique boo xamante ne daa fort ba ba ba mu mën caa mayee te du te du ko wàññi dara ñooñu bëriwuñ li gën a yomb mooy mu mën mu jox la ne la ñetti mbéy ni dama jëndi crédit. ñaar téeméeri mooy lan tur yàllaa ngi nii boo ci doxee am nangam.
loolu xanaa mooy sayxu tarbiya kon.
sayxu tarbiya léegi ku njëkk ki nga wax daa mel ni mooy sayxu tarqiya.
sikut kooku moo gën a jafe jamono moom. te dafay mel ne léegi ñi koy woote moo ëpp.
foofu sax si sayxu tarqiya sax ma mën naa yomb waaye nag noonu dañ koo tut dañ koo féetale fenn dama ne gars yi dañoo jël yàlla utal ko tur utal ko jëmm utal ko dëkk utal ko sant kon kon de daal di xat misaal man man man mii mas naa am ab gag bu ma am boo xamante ne danaa wër ku ku ko xam ab màggatu mbay fa la laa dem ak koor la fa laa yendu de yor yor laa fa dem ba takkusaan julli wu ma tisbaar julli ma takkusaan ngir suturaal ko gis naa moom bu añ bi bu jotee buñ ko dee woo dana lay ah gaa yi kon boog ma kii daal di daal di dem nga ne moom du du nangoo jëfandiku ci ci suñ kanam ba ma demee ba kii nag ma laaj ko laaj ba xam naa sax mel ni sax xaw a na koo xam sax xam naa jombul waaye jàmbaar la ndax jox na ma dara sàngam ne ma def ko ñetti fan soo ko defee da nga ci xam dara noona la amee ba ma ko defee ñetti fan ba ñetti fan yee yi mat xam naa ca dara donte ne ni ma ko bëgg dëgg dëgg amee ci ma ko noonu kon kon kooka Seexu Tarqiya la waaye ah magatu mbay fa la de am sañu ma sàmm sil la moom ndax ndax loolu dana yenu mën a ci ci ci moom ah loolu nag loolu nag jafe-jafe la mën naa am tey bu ñu ne woon kat ah Cheikh Cheikh Mouhamadoul Mountakha de moom dem fa moom ah xam nga kon day mel ni kon mooy gën a leer fekk na yàlla niwut foofu moom yàlla moom néewul ci njaay ak jóob ak jaxate déedéet déedéet néew ci moom waaw kon moom Seexu Tarbiya bii yow mi ciy dem dangaa war a doon am serafal ci nga ne ko man kat damaa bëgg nangam diglu ko danaay wax gaa yi ne képp ku lay jox wi damaa xuus da nga ko laaj da nga ko laaj ba xam am na ci ndigal jëfe gi ak joxe gi ab xale ñëw na fii ne ma sama sëñ de dama ko laaj wér ma xus mu ne ma rek jëlal jox na ndigal waxuma bu ma ciy def te man rus naa koo laaj fan la ko jëlee. ak sëñ Silaam foofu tamit damay wax ne wér du ma xus ki la koy jox est-ce que waru laa leeral sanatam moom.
ci ku ci diw laa ko jëlee mu jëlee ko. ci diw sëñ Tuubaa farata la ca waaw waaye wax noonu rek mu ne la demal noonu rek.
waaye nag.
waaw waaye nag ginnaaw kilifa yu bari yuruñu ko. kooka kooka soo ko soo ko soo ko la la laajee li li ci gën a ci bari mooy day naxas naxas rek ah waaw jox jox naa ci digal. waaw loolu ko loolu kon moom nag ki nga xam ne nag dañuy am murid la. volontaire la. moo war a am fullay foo ko jëlee.
foo ko jëlee ok ma dafa mel ne. murid saalik moom. li gën ci ñamam. bu muy jëfandikoo mooy saxal. tur moom sikkar tur yàlla waaw sikkar tur yàlla xayru taami lil muridi saaliki dawaamu dikri dil jalaalil maalik comme ni ko sëñ Tuubaa waxee foofu nag foofu nag mooy tur wuñ la jox waxut rek ci nga ubbi asmaa lahul husnaa ya nekk nekk ca tur woo gis rek wérde ko déedéet sëriñ ba ci boom yow da ngaa nekk ci traitement sëriñ ba moo mooy xool tur sàngam moo dëppoog yow ci nangam def ko nangam ci ab lim nangami fan dikkal boo noppee dikkal loola loola médecin ba moo lay jox loola danaay wax gone yi ñu leen pharmacie de xanaa soo soo soo fa duggee xanaa day lépp de xanaa luy faj la luy jëriñ ñu waaw may leen waaw duggal ci pharmacie ba tibb yi lekk rek lu muy jur ñu ne xanaa faatu ma ne kon mi ko tur yi yëpp a baax yëpp a tedd waaye ku ci nekk daa am sa tempérament lu lu mu dëppool sa xaala sa état lu lu mu dëppool sëriñ baa lay jox loola.
waaw sëñ Moustapha xam naa ne. waxtu waa ngi ñuy bëgg a dab waaye.
waxtu waa ngi ñuy bëgg a dab xam naa waaye foofit am naa ci laaj. taalibe bi nga xam ne sëriñu dund bi la àndal. bokkut ak sëriñ ba sëriñu dund bi fi mu toll.
waaw waaw waaw bokkut ak sëriñu tasawuf ba aada waaw bokkut ak sëriñu tasawuf ba ñu wax ca téere.
waaw.
mu mel ne ku ànd ak sëriñ boobu nga xam ne niñ koy waxee léeg-léeg sëriñu ndono kër sàngam la sama waajur bokkoon rek faaw fa lay bokk léegi sëriñ ba nga àndal nanguwu laa jox benn ci tur yi nanguwu laa dikkarloo te nga bëgg a doonub saalik ndax sañ ngaa seeti beneen sëriñ boo xam ne moom dana la sóob ca yoon wa ba pare ànd gi nga ànd ak kii ci aada ci rafetal mën a continuer ah kay benn waaye da ab xale dafay ñëw ne dama laaj sama sëriñ di wér maa xuus mu bañ nu may def ma ne ko nga ba ko mu ne ma ah man sax xet ñëwoon naa ci yow ba nga ba nga jox ma xuus bi waaye dama bëgg a rafetal rek ma ne ko waaw noonu gën daa xudus gi it ca marché ba nit nit dem na fa nuyu ma ne ma man de soxaw naa la nangami weer mu ko alum doon mu ne ma man de sama sëriñ nangam ak nangam ak nangam ca ca ca la muy jëf te man ba ma xamee ba tey ba ma fukk ak juróom-ñett ba tey maa ngi woon di julli nu may def ma ne ko ma ne ko da da ngay wut beneen sëriñ boo doxalee sa digganteeg sa boroom te- te nag di rafetal ci sëñ bee sëñ bee su su su wootee kule rek Cheikh Moustapha ga nga xam ne moo ko andi woon moom dee fa joxe sa addiya de de de dee ko siyaare ji waaye nag yow nag sa diggante sa sa borom nga wut koo fa doxale loolu moom loolu moom ndax ndax ndax nos gi li liy tax bu si Cheikh Mouhamadou Mountakha bëggee tabax uni- ab université mbooloo mi indil ko milliards yi loola nosug Cheikh Moustapha Ga kon no- no- nosug Cheikh Moustapha Ga ga kon doonte ne adduna jamono dañ koo war a gën a nag jëkkalaat gën ko dëppaleeg jamono waaye nos ga moom wërta dagg ndax nos nos ga bu bu- bu daggee lu mbooloo mi bëgg duñ ko mën a am kon moom léegi nag kat eh, loolu adduna la Cheikh Moustapha nosam nga adduna la nos waaye nosul yàlla de sëñ sëñ Tuubaa moom nos gëm andi woon moo yàlla kon moom léegi ku- ku- benn waay benn kilifa ci kilifa yi dongam daa xàcc mu ñëw mu ñëw suñu bokk ne ne ne ko man de damaa amoon sama sama benn talibé bu bu xàcc sëñ bi ne ko déet da- damaa yaakaar ne dafa soppiwu liggéeyin rek ndax buy xàcc man lay ba buy xàcc ma man lay ba kon sëñ bi dëgg dëgg sa- sa- sa- sama bàyyi nee na ma s- sëñ bi mooy tool bi ab dong nag bu duggee ci biir tool bi sañ na garab gum njëkk a gis wékk ca mbubam waaye mu ne ma nag su añ jotee nag foofa lañ koy indil ab añam kon ko dong bi na xool garab gu muy wé- wékk mbubam de ndax su añ ba jotee foofee lañ koy wé- wékkal mbubam
jërëjëf sëñ Moustapha kon daal waxi dunnun al misri mas naa koo dégg ci benn xissa Mm.
mu mel ne noonu la defoon dafa àndoon ak sëriñ boo xam ne da doon woote ba bari mbooloo rek Mm.
waaye moom àggul fenn Mm.
waaye donga bi dëggal ak pas-pas bu mu am Mm.
ci nangoo liggéeyal yàlla nangoo jaamu yàlla teg ci te rafet te sellal lool Mm.
tax na dafa mel ne ab daal yi lañ wax seen kilifa ga ba mu wàccee ñuy wut ku ko wuutu ñuy wër ci xoli mbindeef yi kooku lañ gis ne moo gën a sellal ab xol ñu eh, jël ko def ko muy seen kilifa ñoom mu raw sëriñam boobu fuuf ba mujj nee ñu moo ko mujj xett li loola daa mel ne dañ ci jàngale ne nit ki pas-pasama koy jariñ donte bu àndeek ku ku ku demul waman tawassala bi waasilin wasal nag waman tawassala bi ak siin fasal xam daa foofu it am na ab teqantal Dé- dé- li li nga jëkk a wax exception la de waaw ci ci ci ci ci ci xaaxida bi daa am koo xam ne yàlla dogal ci ësal ok faw aywa.
mu- faw mu mu mu- mu doon mbër mu doon bër aywa aywa
raabinatul adawi radiyallahu taala anha ma nga juddoo ci ci- ca nekk ca njaam nga nekk ca lépp sàngara sa lépp ba mu jógee njógteem la doon murid muridatun saadiqa ba ba mu jógee mujj na imaam lu junne di ñoom di ko seere si ci ak nam njëkke woon ci ko wut nit nitu kat nitu kat waaw Cheikh Abou Isi Isi Dun Bustami yi waaw ñee na ñetti fan laa tërbiyewu ñetti fan bu njëkk bi ma ma jéggi adduna bu bu ñaareel bi ma jéggi alaxira bu ñetteel bi màgg ci sa sama borom ñe- ñetti fan ci kooku kooku ex- ex- exception la exception la moom yii kooku kooku kooku liñ xam daal ku bëgg a dem da ngay ànd ak da ngaa ju- ju- dem grâce su Dakar ne damaa bëgg a dem dem Dakaaru Mhm.
fekk oto bu bu rafet boo xam ne dañoo wékki pënu ya waaw waaye jëkk na lool Mhm.
nga- nga dugg ci biir da nga dem Dakaaroo déedéet doo def fenn sëñ Moustapha ñu tëje kon melokaani murit saadix yi sëñ Tuba way ok muy ñeenti melokaan yooyu ne dama ko nos way ko ngir ragal ak waru ñeenti yooyu muy dëggal ci bëgg gi nga bëgg sëriñ bi sëriñ boobu ban la ndax sëñ Tuba la wala sëriñub tasawuf ba ca téere la wala sëriñ bi ci dund gi nga xam ne léeg-léeg nga ànd ak moom ci ci masla ban la ci foofu bala ma fay agsi docteur Ahmed Da- Darame. talib bi sëñ Mourtala la. së sëñ Xaaj. waaye sëñ Mourtala la àndaloon. yaakaar naa wala sëñ Mourtala daa jaxasoo ñu ñu ñu ñu ma ñaan yëpp daal. nee na ma euh, da- da- France lañ nekk mu- xëy suba nii ci hôtel bi nii di di ndékki sëñ Mourtala ngi toog ci bateau bi. su su- moom ak sëñ Saam ñu toog fa sóob di ndékki. sëñ Mourtala ni leen fen non loolu de loolu na ko waxee de fen ci ëpp sëriñ la gën a jekk ñu nee na ñu ñu teg mu mu- mu ne waaw ndax dañ ko ko ko ko dul fooge daal di ne daal di di ne ab sëriñ bu leen wax bu leen dëggatee ab sëriñ wax wax dara na na ngeen ko màndaxe ci kitaab ak sunna xam nga da- teg ca daal di ne nag ñooñu ñooñu tudd sëriñ ba noppi te duruñu ko bu ngeen leen dee joxati dara bu leen ko tuddi addiya tuddi leen ko maslaa kon kon kon hadiya kon hadiya mooy lu ñu lu ñu joxe ngir yàlla lu lu jëm ci yàlla ngir ngir sóobu bu dee maslaa nag mayeeg nangam la kon hadiya kon ak maye bokkut eh, sa laaj bi si- sifaatu sa saadiqil muridi al muridu saadiq fi iradatihi xaqan kooku mooy sa sëñ daam Abdourahmane Cheikh Fall ñooñu buñ dajee jeeg sëriñ ba dañoo war a summiku ci seen lépp bayliku la sëñ Saliou wax bayliku nag duyut borom borom borom xel waaye taxu koo daanu kooka mooy sëyxu murabbi tigi benn bi da nga doon murid yow saadiq fi iradatika dëgg-dëgg da ngaa bëgg yàlla waaye bëggu àdduna nga ànd ak sëriñ bi nga fekk sëriñ boo xamante ne xam na yàlla xam na yàlla bu wér man faa man laa wo- wommat jëmale ci bo- borom bi su boobaa da ngay bàyyili ko ci ay loxoom waaye waxut waxuñu nag sëriñub aada déedéet misaal xol sama bàyyi ba mu bëggee jël wi- wi di maxuus dem ca sëñ ca sëñ Malam Jóob moom ma ko nettali sëñ Malam Jóob ne ko demal ca sëriñ laaj ko ci ndigal sëriñ mooy sëñ Bakka Badine la wax nee na mu ñëw wax ko sa sëñ Bakka Badine sëñ Bakka Badine ne ko demal ma ne waaw lu tax sëñ Bakka Badine boobam moo doon mur cheikhu mu murabbiim moo tax traitement bi beneen médecin du ci dugg lu may dalay laaj fan la traitement ba tolloon nga ne ko fii mu xool ba xam léegi traitement bi day wëy wala da da da day taxaw ama sëriñu sëriñu aada moom sëriñu sëriñu yaa ma neex la jom bul waaje daa am adduna jum ca bëgg wala boog daa rus nekkat fii fii fii la bàyyam nekkoon mënu faa génn alxuraan tontu nañu inna wajadna aba ana ala umma wa inna ala asrihim la muqtadun nun kat lu tax ngeen ne ni fi ba tey ñu kon kat suñu fekkoon suñuy bàyyi ne fi mu ne awlaw kaana aba uhum laa yaqiluun shay'an wala yahtadun ndax yéen mënu leen a xalaat ne kat seen bàyyi seen maam yi xamuñu woon yoon wa loolu tontu alxuraan la joo xam ne ju leer nañu la ju logique la waaye daal lu mu bëgg dëgg te xa- te- te dëggu te bëgg nga dëggoo war naa gëstu la ko koy may mu sóobu ca yaakaar naa ko kon foofu yaakaar naa ko kon mel na leer ko sëñ Moustapha kon bu ma bëggee tënk rek dafay mel ne kon sifaatu saadixil murid ñeenti ci sëñ Tuubaa wax dëggu ci bëgg sëriñ bi eh, bàyyi eh, diingat gu biir ak gu buti ak eh, lu mel ne eh, eh, lu salabu ixtiyaar salabul ixtiyaar bañ a tànnal sa bopp eh, yooyu moom Mm.
dafay mel ne ci sëriñ bi tasawuf di wax ba nekk ci téere ya Voilà.
bu mel ne sëñ Tuubaa Waaw.
ak mag ña moo ko tax a jóg dëgg-dëgg Voilà.
ak boo ko gisaatee ci jamono tamit waaye dafay mel ne léeg-léeg sëriñu dund bi nga xam ne léeg-léeg ànd ba la koy waral mooy ak maas wala kii lañ la jox ak yu mel noonu rek dafay mel ne yële melokaan yële moom euh, dëgguut ci moom euh, maanaam euh, dëgguut ci moom waaw kon loola tamit ah, lu mat a ràññee la daal maanaam warees na ko warees na ko gën a kii bu baax a baax kon jërëjëf ci euh, ba tey leeral gi nga leeral diggante taalibe ak sëriñ se- euh, tarbiya bi nga xa- xam ne daa laaj taqoo ak tarbiya bi nga xam ne euh, takkoo la waaw borom dafa nekk këram waaw eh, sëriñ bi di ko tarbiya moom it tarbiya la très bien la waaye nag eh, waxtu wu nekk day dellu si Mm.
eh, mu di ko jox comme médecin bi ni muy def ak malade bi Mm.
Eh, comprimé bi war naa yokk Mm.
war naa wàññiku Mm.
ko- noonu mu bu ko defee mu delluwaat nga xam ne takkuwut ak sëriñ bi Mm.
kon takkoo daal ak koo xam ne daa takkoo ak sëriñ bi comme ni ko sëñ Tuubaa doon waxee Ok.
demal eh, mel na man moom ko doon wax demal ci sëñ diw mu diw mu tarbiya la ok ndax tar bi daa laaj taqoo te man amatuma jotuk taqoo kenn waaye dafa mel ne kon ba tey leeral nga diggante saalik bi nga xam ne dafa jël lu leer muy eh, donte lasaraar moom moom la ñuy tudde lépp lasaraar nuuraani ak zulmaani waaw ndax secret la rek waaaaw aywa bi jël euh, secret ci kilifa ci ab sëriñam mu teg ko ci yoon ak ñi nga xam ne dañoo jaxase loolu dem dugal ca li nga xam ne yëfi saytaane la muy euh, lasaraar zulmaan yi nga xam ne moo ëpp léegi daanaka di ca dox Eh, yoon wañ jëm day wute mu ne kee yoonu safaan ba la jëm bee yoon yoon wu jëm ci yàlla Eh, ak ànd ak sëriñ bu jëm ci yàlla yooyu kon dafa mel ne leer na nañ diggante baatu murit dikkal nga nu ci. ak saalik. ak boo leen boole mooy muridu saalik lan mooy gaawal ab doxam. mooy turu yàlla. aw ñamam wu gën ci aw ñamam mooy turu yàlla. comme ni ko sëriñ bi waxee. ak ni nga ko leerale kon dafay mel ne daal. sëriñ bi wax waxtu wa waxtu yu dab nañu. waaye leeral nga ci lu am solo. ñu ngi sant bu baax a baax. di gërëm mbokk yi ñu ci àndaloon. sëñ Mbàkke Mbekere ci alxadimiya. di nuyuwaale sëñ Mamor. mi kilifa ak bërëb bi. waaye di la sant bu baax a baax tamit. di la safoo ndax da ngaa bokk ci mag ñi wala ñi wuutu mag ñi leeral tasawuf ndaxte dafay bari gone yoo xam ne fi mu toll léegi ñàkk a xam tasawuf dana leen génne ci. tariqa tasawuf di dellu ci yeneen yeneen i tawaayif yoo xam ne ñàkk a xam dëgg-dëgg ne lii ñu jóge mooy li gën waaye lii dafa naqaree jariñu naqaree jariñu gi mooy nit ki bu ci nekkee te xamu ko pour mu wan ko ginnaaw mbaa mu jàppe ne lu metti la wala lu jafe la daf daf ko yomb lool ak wir duma xus wet li nga ci leeral am na solo lool kon sëñ Moussa ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci jataay bi kàddu goo ñuy tàggu tool rek ñu yeew yëkkati jataay bi yàggagum kon xam naa kon di di di dàggatoo fàttaliwaat màggal gi fukki fan ak juróom ñaar ca timis ji lay tàmbali ñu ko suñ seel yu waxee ba ca fukki fan ak juróom-ñetti ji ca timis màggal gi jeex suñ soxna Mbacke Doudou waxoon ne màggal ak màggal si bu bokkuñu màggal foo ko defee baax na màggal si nag mooy nga dem ci ab dëkk sàngam kon kon koo xam ne dangaa nekk Ndakaaru ba timis jot ci bisu fukki fan ak juróom-ñett ya nga ne da ngay màggal yi yow kon maga màggal si woo de da ngay tukki si ma màggal ga jeex na lu am solo la damaa dem Allemagne jóge Allemagne di dem France Strasbourg bi ma ko bi may dugg Strasbourg xam ne moo nekk ci frontière bi Allemagne ak France ma gis aw rëdd wu ñu rëdd wu ñu rëdd ci tëli bi kër yëpp a taqaloo tëli bi bi ñu rëdd rëdd weex wi ñu ñu ne fii la Allemagne yam France tàmbali fii nga ne rëdd wi képp leen taqale ma ne ah kon de kon loolu kon am na solo lool loolu kon xam limite yi sëñ Tuubaa foofee ci ca njëreem it foofee mu foofee ñu jullee néewee ca kanam ni ni néeg su ndaw soosee ñuy tëj xaw ma lu tax ñu koy tëj amul sabab nag foofu foofee ñuy tëj sëñ sëñ sëñ xaali sëy bay xaali sëy si xaali mi gajëga mii nee na sëñ bi booba peste ba ba mu amee te metti woon lool ku dem ci mag ñi ñu di ko wax ko sëñ bi ne loolu de mënuma ku faatu rek mu ñëw taxawu ko waaye mu ñëw jullee ko waaye nag ma defal leen fii li leen bëgg daal di génn nee bi muy dox sax am na tout tànk bu aw ci kanamam jóge ci karbat wi karbat wi summi ko sëñ bi daal di wéy sëñ bi la jóp daal di dindi kalam jël karbat wa dem ba ci kanam teg ko fa sëñ bi ñëw sol ko bu baagsee ba foofu bay xalis yi nee na mu daal di rëdd tàmbalee na joor rëdd ab carré mu rabba ba mu àgg musumi daal yi ci biti dugg ci biir murabba ba julli fay rakk daal ne mag ñi maarifaal leen ko xamtu leen ko dégg nga de nañ ko wutal ay limite daal ne kuñ jullee fii suba mu yendu ji àjjana ku ñu fi jullee ngoon mu fanaanee àjjana fi ñu toll seytaane jàmbara lool wut tëj nañ ko dara ñu ko de tëj nañ ko di jullee ci ci biti seytaane jàmbaar la jàmbaar la suu jàmbaar la jàmbaar la te te te te sëñ bi maanaam man loolu dama xamul daal loolu man mooy lan moom maanaam seytaane pexe mu yomb moomu te ni ko dañ ko tëj de. dañ ko tëj dañ ko tëj rek ba ko noonu. kon nag kon kon kon maa ngi fàttali kon yooyu limite yi màggal gi kon fukki fan ak juróom-ñaar ca timis tàmbali fukki fan ak juróom-ñett tusubaar ja nag dëgg-dëgg màggal gi rek mas na ne mooy tusubaar ja ja sëñ Tuubaa doon jullee ca jeewal ca tànk tànk ya kon tusubaar ji ku ko mënoon wut sa satala yeesal bu tusubaar ji jegee bu duggee nga yeesal sa sam njàpp teewlu tànk-tànk yi suñu tubaab nekkoon ba julli julleem nga nga yeesalaat julli ci yow julli nga nga yeesalaat julli la la Sëñ Fallu waxoon ne liggéey bi mooy julli li ñu fi indi mooy julli kon ñu yeesalaat julli ci ca bis ba di ñaan suñu boom defal ñu ko màggal gu tedd tedd tedd lor yeeg yëpp nag xam naa ne ndox mu bari mii nag moom gaa yi nga xam ne yor nañu xaalis ñoom war nañ cee pexe pexe de xam naa ñiy def safar yi safar yaat yi ma dégg safar yi dañ ko waroon a jëmee ci génne fi ndox mi ci Touba Ndakaaru fu am ndox nekk la ngay def safar ci nga jëmee ko foofa ak dimbalee ko ñi ñi nga xam ne soxla woon nañ ko ak leeral mbedd ya ba ba ba nit ña mën faa jaar loo loolu dëgg dëgg mooy safar waaye di togg di lekk ak naan moom loolu loolu woyof na toy yu asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu
jërëjëf sëñ Moustapha kon foofu la ñuy yamale kàddu gi tàggatoog mbokk yi incha allah jox leen dig daje ba beneen yoon jërëjëf barakat Cheikh Al Khadim